mbokk yi tey nag benn secret bu am solo laa ñëw tey pour jox leen ko ma bëgg ngeen déglu ma bu baax ndax am na njariñ ndax secret bu yaatu la boo xam si ni lu nekk lay def maanaam daal aajo nit moo ko tax a jóg yow aajo boo mënti am ndax lu si gën a bëri dañ leen jox ay secret yoo xam ne si wàllu alxuraan ñu bëri dañu mën a bind moo tax ñu leen jox secret yi nga xam ne ku nekk dana ko mën a def fi mu nekk dégg nga soxla boo mënti am ak jafe-jafe boo mënti dund moo xam si wàllu am-am la moo xam si wàllu yaram la moo xam si wàllu kattan la moo xam si wàllu wërsëg la moo xam si wàllu wér-gi-yaram la moo xam si wàllu diggante la moo xam si wàllu sëy la defal sa kër bi incha allah. gannaaw loolu ñi nga xam ne ñu ngi bëgg def istixaara di seetlu seeni mbir wala seen mbiru bopp wala lu jëm si wàllu diggante wala ndax sa biddiw ak biddiw ki ngay génnal ànd na wala déet mun nga ñu yónnee message whatsapp wala ngeen woo ñu si 76 605 63 19. bu ko defee sa bi yomb na ndoxu kooku ngay ndoxu kooku ak tuuti xorom xorom bu dijj bi na ngay wut wut sa benn suwoo nga def si ndox nga jël ndoxu ko bi def si biir jël xorom si def si bu ko defee na nga tëj ko ba su dimanche nga koy commencé dimanche lay nekk dimanche altine talaata mu jeex ñetti fan nga ko war a sangoo suba ak ngoon saa si sangoo nag da nga koy tiim wax si li nga bëgg yëpp ñaan yaa xam sa soxla lan la nga ñaan ko si nga sangu noonu nga def ñetti fan yi jeex përiwul ñetti fan kese la loolu moom mos dole la ku ko def da nga gis li ma la wax incha allah si kàttanu yàlla soxla boobu nga si nga si yéene dana faju incha allah beneen ba mooy bu fekkee ne mun ngaa bind izaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta naas yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba nga bind taba yadaa abii lahab wa taba maa naalu maa lahu maa kazab sayaslaa naaran zaata lahab wa amra'atuhu hammaalatal hatab fi jiidihaa hablum min masad nga bind

nga toflante ko ni ko euh, alxuraan tegee ba mu na jënate woon naa si nga xoj ko boo si mënee def gagu ginaar gagu ginaar gagu ginaar ginaar olof yi nga def ko si biir di ko sangu gisuma lu ko gën a am doole si wàllu kaare nga tam ak lu lay musal yow ak sa njaboot su fekkee ne chaque jour mën nga ñetti saar yi nga xam si ne amul keef nga xam ne euh, Cheikh Mouhidine euh, Samba Diallo da ko doon joxe boobu tam maa ngi leen koy baaxee itam boobu te yal na ko yàlla yërëm muy ku baax kilifa gu baax yal na ko yàlla yërëm xarak àjjana fi daw si yàlla tas ñu ci barkeem maanaam te loolu gis naa ci njëriñ muy wal asri inna insaan la fi xursi illa lazina amanu amilu salaat wa tawaasaw bi xaq wa tawaasaw bi sabri li illaa fi qardasin illaa fi rihrati sitaa wa sayfi fa yaxdu rabadal beyti allazi at'amahum juun wa amanu min xawf ak tam qul a'uuzu bi falaq min sharri maa xalaq min sharri xaasiqin izaa waqab min sharri nafaasaati fi uqad min sharri haasidin izaa hasad boobu ñett yooyu ngay jàng ñett yooyu ngay jàng su ko defee après incha allahu rabbi balaa nga nga jàng ko yoon ñaan di nga bëgg boo xëyee nga jàngat ko dana tax kenn du la mën si yow dara kenn du la liggéey ba jàpp la même tam benn doomu doomu gerte doomu gerte nga wut mooy doomu gerte boo xam ne day ànd ak xott bi waaw waxuma nga dem toj ko ba pare déedéet am na gerte yoo xam ne benn lay nekk benn benn benn doom te si xott ba lay nekk boobu nga jël ko takko ko kenn du la xott ba jàpp la kenn du la liggéey ku la liggéey mu dool si koom boobu moom maa ko may kon fex la ngeen def ko yéen a yàlla defee ñu jàmm ak taw fa ñu ñëpp aat ñu sàmm ñu feesal suñu loxo yi ak àddina feesal suñu xol yi ak yàlla yàlla dimbali ñu ba ñu am suñu bépp càkkutif boo xam ne ñu ngi koy sàkku kon ñu ngi yem fi ba suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.